lii dama jaral lu ne. man góor du ma asale góor du ma gëtëng. mais dama la ne. paquet du biscuit. benn doo koy yëy. li ma waxoon maa ngi jaba tey. li wax ji di gën a bari mu gën a metti mais ku bëgg a gis prix dur prix dur. xeex naa mu joo xamante ne sama bakkan laay teg. man foo sax bëgguma ñàkk. waxuma laaj a ñu dugg biir kii. koo rek maa la gën a xottee. fuuf xotteeku yow man man may yàqu. la wax man damaa yàqu. waaw maa la gën a xottee. ñu tàngoo yàqu di dem. ayca jërë ngeen jëf mbokki Actubuzz TV jërë ngeen jëf mbokki people 24 yaakaar naa ni bu làmb mësaana toll fii rek wala bu làmb tollee fii dañuy jàkkaarook abu mi nga xamante ne mooy abu CFA tey nag waxtaan bu am am solo la ñuy waxtaan waaye waxtaanu secret waxtaanu xam-xam waxtaanu làmb ñaari open press yi jàll nañ moom lañ doon xaar mu ngeen waxtaan si li nga xamante ne moom mooy làmb ji Modou Lo Siteu coow li bari na ku su nekk yaa ngi génn di wax Abou ñu ngi lay nuyu di la ziar di la jaajëfal. waaw delloo char bi yërëme il moom maa ngi lay char bu baax a baax di la jaajëfal di nuyu mbokk àdduna di ñaan ci réew mi jàmm ak salaam di nuyu suma xarit sama sëriñ di nuyu sëñ Modou Touré di ko su ma dafa ko tawféex ak euh, yàlla may ko jàmm ak salaam baax a baax waaw ñooñu njabootu Cheikh Ahmadou Bamba Touré lañu waaw di ko nuyu bu baax di euh, ñu ngi koy Touré ñu ngi koy ñu ngi lay gën a joxaat suñu bopp rek nga ñu gën a fas di ñu gën a di ñu fasaaleel voilà di ko ñaanal yàlla su ma ko jàmm ak salaam bu wér wér a wér a wér a wér voilà noonu laay def ilmu tamit di waxtaan ak sénégalais yi di waxtaan ak doomu adama yi ci àdduna bi ci li nga xamante ne mooy benn garab boo xam ne maa ngi koy garab gi mun naa ne léegi doon na ay garab parce que doon na ay garab euh, ci wàllum li nga xamante mooy ci hémorroïde ak koo xamante ne dafa am impuissance sexuelle wala ko am ay ballottement wala ko xam ne sa sperme baaxul koo xam dafa wala koo xam ne day gaaw a wala ko xam ne awraam dafa duggaat awra bu duggaat nag hémorroïde dina ko def des fois si dina ko def léeg-léeg na nga dem si yenn kilifa sëriñ si xamante ni tey <laughs> dañuy bëgg a dóor ñun euh, la rab maanaam ci ay ay jàngoro rek moo koy def wala ni na pomade bi day yokku awra xam ne dañu koy jël ma koy jaay ñu ko utiliser seen ween yi wala pour seen ansi xale jigéen yi baree baree bari ku ci soxla nag dama woo sama numéro téléphone 77 745 32 31 voilà parce que mbir la daal waaw ku ci soxla daal na ma wax si sama numéro téléphone moom ma baamtuwaat ko 77 745 32 31 parce que damay xuus ñu waxtaan ci tey ci li ma ci côté làmb voilà ci loolu laa nekk ci làmb ji laa nekk di wax nii am na tey ay ponk yu bari ma wax ci ci làmb ji nag di nuyu ñëpp nag wax dëgg yàlla di nuyu àdduna di wax ne ñëpp di leen siyaare di leen ñaan jàmm ak salaam. d'accord gannaaw bi nga nuyoo Abou dañuy jublu si li nga xamante ne moom mooy waxtaan bi ñaari open press jàll na Siteu dem na Dionewar def fa open press ay mbokkam. moo Modou Lo ñëw parcelle def open press fi nga xamante ne mooy parcelle fii di goxam ñaari open press si jàll na tey dañuy ñëw si état physique ñëw si mystique tey damay njëkkee si Siteu moom mi nga xamante ne moom moo njëkkee def open press am naka nga gisee Siteu état de physique gu Siteu bi nga gisee Siteu démb keroog mu njaag def li nga xamante ne moom mooy open press am bàkku déplacement wu Siteu yi naka nga gisee loolu. waaw Elma jamono jii dafa am leen lu ma xam ne euh, damay xaw a reetaanloo fan yii euh, journaliste yi fan yii presse fu ñu may laaj ah? dañu am dañu lay laaj état fii laaj mystique laaj la sëriñ xam nga kuy daam. waaw dëgg la. waaw laa déy yaa wax. waaw dañu maa déy du ma seetkat du ma am ñaankat képp kuy ñaan nangul naa la mais na am naa ñu may déy di ma wax. it mën nga bañ a liggéey fi mystique mais nga xam mais nga maîtriser mystique xam fu kër yi baaxee nekk. dama xam mystique man dama xam fu kër yi baaxee ne xam ñaankat yi fa ñu féete dama xam mystique. carrément dama xam fu mystique bi am xam kër yi baax yi fu ñu ne xam ñu man ak ña manut ak ñoo xamante ku ne sa parce que mystique ku ne da ñi nga ñaan ku ne dafa am foo mën hôpital nu amee gynécologue am euh, chirurgie am koo xamante ne bopp métti lay faj am koo xamante ne jigéen sage-femme ci jigéen la yem sëriñ ci noonu lañ ëppante ay capacité mais damay léeg-léeg ma gis ñoo xam ne dañoo dëgër fit loo waaye indi ñu la mën nañ ko ba mu nee bopp bi métti ci loolu ci loolu soo mënee nopp nga yem say nopp boo munee ci kayit yemal say kayit mais yàlla daf ma boole ay nit te ñi ma boole ñëpp ku ne xam naa am nga la nga xam ak loo capable. ñëw si Modou Lo Siteu. waaw ma ñëw ci Modou Lo Siteu Elmo. combat bi combat bi mystique la du combat wu li ma gars yi di laaj. di du combat doole. du combat wu performance du dara. ci combat mystique la. dama gis làmb ji ci côté mystique à 100 pour cent. te ba ni may waxee yow nii am na mbër moom la moo raw ci mystique. bu doon làmb ji tey tey tey tey la mbër moom mooy daan tey. mais mais mais mais mais naka gisee Siteu parce que di gis nañu ay video tout récemment vidéo yu génn ñu naan Siteu dafa jeex Siteu mënu mel est-ce que loolu noonu gars yi naan vidéo yu yàgg la gars yi naan vidéo yu bees la. Siteu est-ce que coréasul. mooy lan. mooy dem contact ba os. xam nga contact day jeexal mbër. mais bu gis nga fem bi yeeg yooyu. oh de euh, Siteu yaram ma mu neenam kenn gisagu ko depuis keroog ci shooting boobu ba léegi saa bu ñëwee am gars yëpp yëre lay sol. mais vidéo yu gis ni nag mu sol caleçon di jaabante. waaw vidéo est ce que nekkul vidéo yàgg parce que euh, boobu dafa dafa lourd de yaa ngi comprendre euh, mais Elmo combat li ma la rek Siteu combat li mu ci daj mosu ko daj ci làmb. Modou Lo li mu entraînement ci combat mosu ko entraînement ci làmb Modou Lo. Modou Lo kañ la Modou Lo dafa kontaan ba xoos ba kanam dagg di naaj kon Modou am na fu ñu jëmale combat bi xam nga lu tax. lamb ji man dama ci dugal Modou Modou Lo man maa tax mu dugg ci lamb ji parce que man maa tax ne ko Modou eh munoo Siteu te wax jooju sama wax démb ak tey laay ànd ak ba léegi ku ma tëddoon ci ay nelaw nit yeema ne ma Modou ak Siteu ku ma man la kenn manut gaw ma Modou Lo moo mun Siteu ci lamb ji bu ñu bëree ñu xam ne bëri nañu xam ne ay góor daje nañu maa ngi dégg ay 35 combats moo doo mun Siteu ñooñu ñoo ñoo ñooñu xasuñu Siteu dañ koo motiver. mais Siteu si la si la si la jëlee maître. waaw dañ koo motiver dañ ñoo tax Siteu ne ci làmb xam nga xam loolu léeg-léeg nga wax mbër xas ko xas ba motivation la da koo defaral. el moom làmb ji na nit ñi tey ci làmb ji làmb ji fonk la dafa bëri ci benn côté mbër mi ñëwoon naa ne bu làmb Siteu bu solee yére tuuti. di la compliqué ci kaw Modou Lo te lambu a jamono dafa sol yére lambu Siteu am na secret bu xóot bu ci nekk bu kenn xamul ci lambu ji lambu Modou dafa bari fonkoloor essaay nii ma ñemee moom fonkoloor ci côté côté lambu lambu nag laa wax fonkoloor dafa bëri ci côté ci côté Modou Lo. Modou Lo fonkoloor bi nga xam image yi def naa lii dem naa fii dikk naa fii. ah mais loolu kenn na koy def si yaakaar naa si si si côté Modou kenn na fay def muy saa Touba. yaa ngi dégg saa sëriñ la ku bëgg moo loolu moo du ko jaral lu ne ba ci bakkaram bi moo du ko jaral man maa njëkk taxaw ci internet ñaawlu lan moo tax nit ñi saaga saa Touba waruñu ko saaga day làmb mbërëm la gëm saa Touba même bu nekkul làmb làmb moo day jeex saa Touba saa Touba dafa faj yenn aaju doomu aadama dafa am ñu ko yaakaar quoi ci ay yeneen yeneen quoi làmb amul xaalis yéen moo démb démb laa toog ci internet bi barke Seydina Mohamed ñaari kaa yi ku ma ci fay 10 millions ma jox la ndam xam naa seen i sarax mais amul kenn ku ma sañ woo si ñoo ñooñu kon làmb amul xaalis amuñu xaalis xam nga dama am am fan la ban position laa ñi am jafe-jafe yeneen ci àdduna bi am jafe-jafe ci ay kayiteg yi et cetera nañ ma woo ma booleen ak kilifa yi ñu ñaanal leen ba ci professionnel yi joueurs yi ñu bëgg a ay pro man ñooñu laay fa man état laa bëgg a ñaanal mais du état laa bëgg a boole samay kilifa. ñu ñaanal leen Elmo dama dëkk ay dëkku mystique Elmo dama dëkk Guinée Bissau dëkk Casamance Kolda foofu laa yem. d'accord foofu nga yem mais bu ñu ñëwee si combat bi Modou Lo Siteu parce que ba ab ba tey je pense que dama bëgg ñu gën a xuus si komba bi ñu wa génnee xam-xam làmb. Mhm. loolu laa gën a bëgg si si sax nga génneel ma. état physique laaj naa la ko. mais dafa mel ni bon. Modou démb gis naa mu mel ko sonn di appart damuy wax. Modou Lo bu ñëw si open press bi daal di def trois pas daw jàpp tànk daw. ba muy toog di wax muy appart am na fatiguement bu dal Modou ci làmb ji xaw ma dafa teg ba mu coono Modou dafa Modou poids bi mu jël waru ko jël ci làmb ji. est-ce que Modou dafa jël poids bu. dafa jël poids. Modou Lo ma gis démb nekkul jëlul poids de. Modou dafa jël poids Modou waru toll nii Modou poids bi mu bëri ak Ama Baldé des na tuuti li desoon mooy rapidité ba indi na ko. dafa waroon gën a diis tuuti mais diisut ko mu ñëw contre Boy Niang nag indi poids normal mais bii dafa dafa déploré rek dafa ëpp poids bi mu ëpp bi indi contre euh, ci mooloo ci combat bi. mais démb laaj nañ ko sa poids bi ba xam da jël poids moom mu ne combat bu nekk ak na mu préparé. dafa am staff. dafa jël poids. moom dafa jël poids. est bi laajul nii parce que Modou bi ma gis nii. mooy Modou ba ma gisoon si contre Eumeu bu njëkk ba. waaw dafa jël poids contre ndax Eumeu Sène bërëkat la nga koy gën diis tuuti da nga mun koo tenir bërëkat boo ko gën a diis tuuti di nga mën a tenir bëre ba di nga mën a tëj bëre bi mais damay Siteu am poids bi mu yaram dem ba ci benn resaat lan la. <laughs> ah bu ma gis nii gis naa si combat bi mbët bu ñu bët waaw mais nag taxul Modou taxul nag ma ne Modou euh, day daanu de déedéet waxuma loolu de ci côté analyse lañ ma laaj quoi poids bi Modou bi man de bu doon maay coach Modou bi baaxul ci sama côté man ku nekk nag ak sa gis-gis gis-gis dañoo wute de. poids bi mu la du ci bëgg a lim ci bëgg a def yëpp ko def ci làmb poids bi mu yor daraga du lu ko bëri yu bëtt fii la fii ñu wër la ndomb nga bëtt génnewaat xeex daw gëdd dóor indi joxal njaay ru génn moo bu ci bu amee doo contacts trois contacts mun na mun na mun na étouffé mun na bàyyi premier souffle Modou Lo bu yéexee tuuti génn mun na ba bañ Siteu gën koo am gën ko nekk ci combat bi jàpp nga ni combat Modou Lo Siteu war na mën a durer. na durer tuuti nag du combat buy buy buy jeex ci ay secondes mën nañ dawal ay ay simili. est buy nekkee luy diire si ay léwtoo lay doon mais du du du si jàppale. non ci xe ci bërëb lay doon ak xeex bi. bu ñu dina diire. ab ne prip dañ dox latéralement ba sa pegu pegu saako yi fa la jëlee bi di amee fa la bëre ba ne foofu dina am dóorante weccante te dóorante boobu dina am boo moytu dina am kuñ ci dóor mu rëpp. waaw fa la lamb ñu ne. am waxati na. poids bi yor mun ma ko balaamee mbër mu njool la njool na am na li mu bëgg mais dama ne ko na xaw a diis tuuti rek waaw parce que wa bëri ma di oyof yenn oyof yi waaw diis tuuti rek si te na xaw a diis tuuti rek ndax la mu mën a tëru moodu ci biir bëri bi yaa ngi dégg Elmo hmm, fonk la dafa bëri ci ko demoon man ko wax di waxaat bu la 24 dee dinaa fi toog dina am ay wax yu ma wax. waxi la. waaw kot laay def Modou <laughs> yal na yàlla def jàmm ci làmb ji. Elmo waaw séeréer si séeréer si séeréer si séeréer si séeréer si séeréer si ay daanam lañ waaw ñu ngi làmb Modou mu ngi làmb san Modou loo séeréer séeréer la Siteu séeréer la wax Modou séeréer la ñoom ñëpp ay séeréer lañ dama ne séeréer si mm-hmm. ñu ngi làmb mais dafa mel moo gën a jël assuré si ak i moo leen. waaw parce que Siteu moo ñibbi ci ay mbokkam waaw Siteu foo ko laaj mu lay foog la séeréer ne si naanu. est-ce que nekkul làmb ji moom moo tax léegi muy jéem a teg xel. non tegul xel séeréer si amatuñu mbër Siteu mooy sé mbëru séeréer si. Hmm. tegul xel moo loo dem fu ñëw du parcelle. fii la ko yàgg defee. Mor bu ko neexee mu yóbbu ko fële ndax Rousse <laughs> foofu foofu dafay fanaan rek Mor fii la dëkk Mor lu am parcelle moo ko gën gënal. Elmo Modou am na komba bu. doy waar kon si Siteu moo ko gën a. mais januwaar lay ñibbi. ak di ko ak jàmm gën defal. mais loo la januwaar jàmm gën ñooy sama dëkkuwaay. Elmo Modou Lo am na làmb Elmo. Elmo Elmo bu gaa yombal làmb ji. Elmo <laughs> billahi wallahi tallahi Modou saa bu avant moo tëdd dina seen samay vidéo. Modou. bis bu maamee jëli Siteu. Elmo Siteu daan ko jël bu na di coow. Siteu bis bu. songee Modou song mu baaxul mu dina ko dóor kuubu boobaa mën na daanu. lu ci waaye def ci ñaari kaay na assuré Modou buy bëri day assuré Siteu buy bëri na assuré. gisoo Siteu Modou Lo bët Siteu gisoo. moo bu bëttee Siteu mën na indi risque mu nañ ko mbot motom colal indiwaat ko. Ah, Modou Lo bu nu mu nu nu muy bëttee gaaw de. bu bu Siteu ko gën a gaaw. Hmm. ah Ndane viva ki Siteu la primitif la xam nga lu may wax ci lamb ji. am na ci mbër moo xamante ne bis bu indee couleur yi mooy daan dama wax couleur yi faraay ko def naa fa ko tëj am mbër moo xamante ne dina indi couleur yi ma wax elmo lamb ji elmo billahi wallahi tallahi dama ci am yaqiin bu wér péng xam naa kuy war a daan yàlla suñu borom nag la mu maye bu ko nanguwut elmo lamb ji xam naa kii daan lamb ji ilmu lamb ji dina yey ñu bari lamb ji ñu bari dañ ci bàyyi wax waaw ñu bari dootu ñu waxti ci lamb gëmuma gëm naa bu lamb ji jeexee ñu bari dañ ëpp seen gémmiñ ah, boo waxee noonu day mel ni comme si ñu bëj nañ ëpp seen gémmiñ yaa ngi wax seen morom di wax waaw te yow boo waxee da nga jël kenn nga jox ko faveur donc waaw ma jox ma kenn faveur ah, xanaa da ngaa waaw man man man moom sama favori moom laa jox lamb ji Siteu mooy sama favori ba keroog mut di ko daan wala muy daan Modou Lo. ma yaakaar da nga waxee mooloo Lo dafa plafonné amoo la wax si moom booy wax si Siteu ngay wax. Siteu laay lépp ci làmb ji Siteu a bëre. Siteu a xeex. kay na yàllaa ko xam. waaw Siteu daal sama 200 pour cent Siteu laa ko jox. am naa ci droit mu waaw. kat toog jox Modou Lo 35 man sax ñaar toog ne Siteu laa jox sama favori ci làmb ji néew man mooy daan nag doon favori taxul nga daan Siteu du cuune ci làmb quoi du tokaar. li ma seetaan Siteu ñiy wax ci làmb seetaan nañu ko Siteu déedéet Siteu ceer bu bun dafa daan saa kees samedi dimanche daan ceer bu bun Papa Dia Alioune Seye dafa ñëw bëri ak Siteu courant fay ñu jël escouteur yi warale ko géew ba taal taal Papa Dia daan fa Siteu ñu bëri bëri bu métti Alaaji Lawbe gën xam ci mbay géey dafa bëri ak Siteu Siteu daan ko jël bu waaw euh, laasana daa bëri Modou Lo daan Modou Lo jël bu rëy Modou Lo dafa bëri Omar Fall mu ma match nii ak moom Modou Lo dafa bëri Alandar bëri Alioune Seye 2 yaa ngi dégg Modou Lo ñi mu bëri ci làmb bari na kon boog man ñuy wax ci ci ñaari mbëri maa leen gën a xam qualité ñaari mbëri parce que maa leen gën a topp ji abajada lay commencé ba nag ma nga aala imran benn saara ku të muy amayata te Balla Gaye muy amayata saaluuna saa bu bëri ak Balla Gaye du mokkal saar boobu day tëdd waaw ah. ah, waaw mais elmo <laughs> elmo elmo elmo elmo ñun ay doomu ceddu lañ ay doomu lakkat lañu dañoo xam làmb sans dara nag ma bañ a prononcé bañ a wax ci làmb bañ a wax ci état de ma ci cadre xam naa mbër mi gën a pare bu gën a pare mystiquement. mystiquement te am na mbir mu jàpp gàllaaj instant yi nii nii nii ko kongu tee. mais physiquement bay gisee ñaari mbër yi physiquement si loo gis ku gën a pare ma physiquement Modou pare na mais gënu pare Siteu saa mel ni Siteu daw Modou daw ko. Modou loolu gisoo ko démb capp yi mu capp. Modou mag Siteu. bariwul de. li xale mën a dékku mag mënu koo dékku. Modou loolu tamit bu magee Siteu bariwul. moo xale du sonn. xale du sonn. day noppalu rek. waaw ah, xale bu entraîné wul di nga sonn. xale ba ne la xale du yëg métit. Hmm. wuy sama ndey góor du ko wax. di si te de tarkindaa la de ah yàlla mi na feeña. moo moo doon mag amaate moo daan na ko de. el moo nag gis naa nu paax tous les séeréer. moo daan na de. el moo. el moo. waaw ay séeréer laa làkk. làkkat ngay séeréer daaw. ay séeréer laa làkk. el moo. elmo ay séeréer yu pëng laa làkk elmo. séeréer moo doon séeréer si man séeréer laa lakk séeréer séeréer laa làkk séeréer yu wér pëng laa làkk. Ah. yaa ngi dégg mais dama ne ñun elmo xam naa ne ci kanam tuuti daal <laughs> te ma bàyyi wax ci làmb ah. <laughs> yàlla yàlla def jàmm ci làmb ji elmo moo dugg lu loolu dama ciy insister. mooloo na ma man Modou dama bëgg man man mu ñëw wan li tax ma man ma ma kii Modou combat bu mus a bëri ci àdduna ñu ko jox fa bëri c'est la première jox fa bëri ci làmb ji Modou na ci boppam. el mo entourage Modou Lo nañ def àndànk ci làmb ji nañu teey el mo làmb ji bëri na fonk lool de waaw Modou Lo <laughs> damay bañ li yàq làmb Modou Lo jóge ci wetam. nga waxaat ni. da ngay bañ lu yàq làmb Modou Lo jóge si wetam. jóge si wetu Modou Lo. wax ko deux fois waaw mbir la quoi làmb ji am na lu ci nekk de làmb yi fi ceddo. da jàpp ni daam ko nekk si kaw Modou Lo ko koy bëgg a jaay wala lan la. làmb yi fi ceddo la te laay def nit ñi xam nañ ko xam naa lu bari fi ma toog fi ma fi laa toog fi ma toog ma xam lu bari ci làmb ji lu bari ma ko siy jot ay sources hmm. waaw bu làmb ji jeexee après làmb ji la 24. coow dina bari ci réew mi ay bari dina yàqu. même bu dee si camp Siteu Siteu tamit. mel na bu lamb ji jeexee ci kaan yi yëpp diggante bari dina yàqu. Hmm. waaw coow bari dina am. mais doo yaakaar ni ga gars yi ñoo si des parce que yaakaar na Modou Lo Siteu ay mbokk la. coow waaw kay yi nag moo war a diggante bari yàqu ñaar ñi ànd nekkat si nekk. waaw bu xew bu xew amee ñoo fay dajale. ren moo lu bari lu bari dina yàqu. mais lamb bu mu yàq benn diggante nag mm-hmm. na nit ñi gën a delluwaat seen xel nit du doon mm-hmm. maanaam bu mu kii jël moom maanaam du ma ko mën a wax nit bu mu doon euh, bu la alal fëq daal xaalis waaw nit du jaay ngoram mm-hmm. ngor kenn du ko jaay waaw ngor mooy lépp ci àdduna ngor bu dañu ci doomu adama ak dignité yaa ngi mala yéen a yem waaw lu bari dafa xew ci làmb ji lu baree bare baree bare te ñaari ëppam presse am na mbër mu ci yàqule ñi daan si open press lañ ko yàq lañ ko jàpp ñaari open press yi am barki démb ba ak démb bi fa lañ jàpp benn mbër ma te mbër mu ne say nit ñoo la yàqal ci ñaari cas yooyu sa nit moo la yàq waaw nit ñi bari ñuy jaay seen ngoro ndax alalu àdduna lan mooy ay ay millions nañ bàyyi di yàq làmb làmb jàmbur yi baaxul waaw. bon lan ngay tëjee loolu rek ñu bàyyi di yàqal doomu aadama yi dañuy di fatt fépp làmb da ngay kasaw da ngay doon dëmm. mais nag amul nag nit nit nit ku la daan jàppale di la jàppale di la jàppale xëy suba yàqal la kooku mënoo koo koo kasaw. waaw làmb dangay doon dëmm mbër dangay ngay ceddaw julli wut wóorut làmb baaxut làmb baaxut mos ngaa dem si église nga dégg. prêtre bi di xutba di wax ci mbirum làmb wala ci juma wala ci jàkka wala benn kilifa diine nga dem toog nga dégg mu génn wax ci làmb kon làmb baaxul kenn xamul lu mu doon mais nag ngor dafa am solo ci doomu adama man de duma wor war sama nit hmm. man suma nit hmm. dee rek waaw ah, sama kàddu dee rek moo koy dindi sama nit sama nit su ma su ma la si dama lay woo hmm. mais nag ay pexe yu bari ñu ngi ci làmb ci pexe yi réer na lool waaye ah, léegi Elmo doo ma laaj dama xam loolu lii lépp dama sob de te dama am information ci làmb ji. waaw fa ñuy toog di ñaan lu ñoom ñëpp man foo dem am naa link. waaw foo dem am naa fa link am naa fa kilifa gu mag boo xamante ne tey su ma ko ah mu ne ma ah bu ko dee bu ne ma déet sama baay sëriñ la samay maam seriñ lañ dama jur si étude sëriñ si nag samay maam yu jur sama yaay ay ceddo la ñu dañ doon ñaan ci mbir. ñoo doon xaawi sutura ci nitu guddi yi sama baay ba nii mu ngi dundu deewut maa ne ko bu mu ñaan ci làmb na bàyyi làmb xam nga ñun si la ñuy lu ñuy ñaan fi mu ne nii na professionnel yi ñëw pro yi ñu ñaan ci million yi làmb amul xaalis dañ lay sonal wax ju bari nga bari ci noon doo dem fii fee ngay jaar amul solo dox ba say daal ràpp doo ci am fukki dërëm wax ci ba ŋaang na ñi ñëw am jafe-jafe ci àdduna bi ma boole leen ak kilifa ñu ñaanal leen seen jafe-jafe yàlla suñu bopp sottil ko ñi am problème mu kayit yi ñi am problème mu visa yi ñi am problème mu alal ñi am alal bu seen loxo toog ñi xëccoo gouvernement yi ñi xëppoo xëccoo palaasu député yi nañu ñëw ma boole leen ak kilifa ñu ñaanal leen ñu génnee ay millions professionnels yi ne ci àdduna bi bëgg a ci kilo bi mag yi nañ indi millions yi ku fay ay millions barke sëriñ taa ñu ñaan la nga gis résultat lan moo jërëjëf foofu laay tijjee jeex na abu courtier. jaajëf waaw courtier Mara la man courtier Serigne laa de du ma Serigne man maay courtier wu Mara xam man moom du ma nëbbatu munu ma ñaan xamu mais xam naa fa ñaan am a fa gaay ne ku ku ma fay ay millions ma yóbbu la fa gaay ña ne ñu defal la nga gis bu amul bu ma fay man kay man maay sël koo xamante maa la yóbbu fenn ñu la lii boo ko gisul bul fay sa xaalis mais ko amul ay millions jarul nga woo de man ay millions yu bari laay laaj parce que ma Serigne ñu ndaw yoruma ñu tuuti xaw ma ñu tuuti foofu laa yem. jërëjëf Abou